Lamine Samba ñu ngi la dalal di la ziar ci aljuma ji. maa ngi leen delloo ziar maa ngi béggee bu wér wér. non jaaw dama sikk sama la nag. ma andil tey quoi dama raxasal say loxo. da ciy génn. mais sama problème du loolu loxo. sama problème du loolu. dafa am koo xam dama ko rus. Hmm. mais lii il faut ma poser ko question. Ibu ak sa waay xanaa dañoo otest woon wala dañoo tàggandoo. <laughs> Euh, Lamine loo ci xamul. waaw dafa dafa mooy sa naroon na gën a graaw parce que Modou Fall. Aragon dem na ba yëkkati yére. mooy zone bi tegaat ah. ko ci suuf. dégg nga problème boobu laa oh, la xaa comme nekk fi baal ñu jëw ko zone boobu miin na Ndakaaru laa ko. wala ko indi doy nag. wala dama lay may benn affaire bu bu doy waar. dañoo ànd non ak Gaston Mbengue Cissé Thiès. Mm. jógee ci fi ñu dal di dem làmb ja maa aussi man maa ngi sol jaune noir ñu dugg sama oto ñuy dem stade maaw jékki-jékki ne ma non tey moom taxi Thiès yi seen grève bi garaaw na trop ma ne ko ah bon gars yi dañoo grève mu ne ma sii gars yi dañoo grève grève bu garaaw sax quoi ma ne ko waaye may gars pourtant ñu ngi daw de mu ne ma <laughs> fekk man ma fekk man yére bi ma sol xaaj bi zone la. xaaj bi noir la Maawo Jaaw Chérif. non Chérif maanaam def toj toj ba pare. mais yow da nga yore kanamu yërëmtu. yow nit ñi dañ lay gis yaakaar ni xoolal fekk yow Chérif yow. am na lu nekk li ma xam yëpp dafa dafa garaaw. ayca boog ñu door si a kaay doore ko ñu fàttali ne tey la àjjuma fukki fan benn ci weeru sàttumbar euh, Sonko le l'observateur ne fang ci xëtam mu njëkk euh, ci li nga xamante ni nii feem wi mu jël euh, bay opposé wu fii ci biir réew mi li nga xamante ni moom la ciy jëlee ak fi nga xamante ni nii foofu lay opposé ak nga xamante ni moom mooy président Macky Sall l'observateur yéene kaay dikk na ak ñun ci lii di baccalauréat 2020 ñi ko am ni mu baree lan moo ko waral laaj na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay kàngam l'observateur ci fànn woowu dafa jóg ñun nit ci guerre bi nga xamante magistrat yi ñi ngi ko doon amal nee nañ ca conseil des disciplines la mujjee euh, faatu gi cuisinier bi di Benjamin Coly faatu ci anam bu doy waar loolu l'observateur yéen kaay dikk na ci ak ñun Vox Populi dikk ak ñun ci Parcelles Assainies bu Kër Massar ñoom mer nañu lool li ñu mer mooy ni nga xamante ni nii noonu la fa gouverneur bu Dakar demee démb euh, ñoom ña ngay tëmb ca biir ndox ma waaye Vox Populi ne zéro bi nga xamante ni moom la leen Abdoulaye Wade digoon ak zéro bi leen Macky Sall tambale euh, nekk zéro muy France dal xëddeen boobu ak léegi ay digee kese ay digee dong du samay kàddu Vox Populi moom moo ñu ko xamal enquête yéen kaay dikk ak ñun ci euh, euh, ñii di Parcelles Assainies bu Kër masaar seen ndox ma dañ ko war a jël yóbbu ko fa nga xamante ni moom mooy ca bàcce nekk ca mbaaw waa mbaaw nee nañu déedéet du fa dal tey du fa dal ëllëg les échos yéen kaay dikk ñun ci Idrissa Seck mi nga xamante ni ni Euh, digal na ay kàngamam ñu xool réfléchir bu baax a baax ci li nga xamante ne nii mooy feem yu mu jëlee woon moom ci jëmi boppam ba wax ko ci inondation yi ba ñu bëri commencé koo ŋàññ loolu la ñu les échos yéen kaay xamal le quotidien yéen kaay dukk ak ñun ci cours yi nga xamante ne nii euh, lii di professeur Thialé joxe na ko mooy recteur bi euh, bu université ci reprise raté bi nga xamante ne nii amal nañ ko ci université yu bari fii ci biir réew mi moom wax na lépp amul lu mu bàyyi ci biir le quotidien yéenekaay libération yéenekaay dikk ak ñun ci CREI ah, boobu ak léegi 2018 ba léegi ñoom ñu ngi leen di fay te amul lu ñu benn njëriñ askan wi loolu du samay kàddu libération yéenekaay moo ñu ko xamal ne CREI bi mu gëjee liggéey bi mu gëjee euh, réuniru 2015 euh, ba léegi amul lenn loo xamante ne nii liggéey nañu ko euh, fii ci biir réew mi te ay magistrats yoo xamante ne dañ leen di fay amuñu dossier libération yéenekaay moo ñu ko xamal record yéenekaay dikk ñun ci entraîneur bu Mauritanie nee na Sénégal ak Mauritanie dina nekk derby boo xamante ni ñëpp dañu koy xaar loolu la euh, record yéenekaay tey xëy fësal ci xëtamu njëkk euh, foofu la ñuy ndarkeppe li gën a fës ci yéenekaay yi ma bàyyi leen yéen ngeen dem ku ji. Mhm. man ma tàmbaliwaat di liggéey liggéey dong. liggéey kese liggéey rek kon xam naa ñu lay. Chérif da ngay noppalaku. non non fajar Chérif. Ah? ngoon ngay ñëw ngoon ngay ñëw. koo invité koo invité dimanche. non et puis euh, léegi dama dama préféré di génn. ah da ah, maa ngi maa ngi jëm euh, euh, comment dirais-je dëkk wulli bi. wulli. wulli yoon moo tax mun ma wax. man am na benn suggestion bu ma lay yóbbante. ci hmm. làmb ji. Hmm. xam nga banlieue bi dafa sonn ci mbënn bi. Hmm. pourquoi pas duñ mobiliser mbër yi quand même ñu dem jàppale yi. non démb dama def lu doy waar. ci solidarité bugguma ko woon bugguma ko woon sax. mais dama koy wax parce que rétention d' information moom dootuma ko defat. démb dama ànd hmm. ak Lac de Guiers. Hmm. mais il a pleuré. dañu dugg biir Gunaas. Médina Gunaas ak Géejawaay dem ci baat yi dem ci kër yi dugg ak moom ci kër yi mais da ngay gis kër yoo xamante ni ndox mi ba ci kaw. doo gis lal doo gis armoire doo gis dara. la dëgg dafa doon jooy. de même que man. ba pare asamaan si chaque fois. di gën a mais am na ñoo xamante ni nii. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni dañuy tegle ay briques ba ci kaw ñu mun ci togg añ. Mm-hmm. ñu ne dañuy nelaw à tour de rôle. Ah. kii bu nelawee deux heures de temps kii yeewu ndew deux heures de temps nañ ci jàpp quoi ci wàllu solidarité ci fànn woowu xam nga lu tax ñenn ñi duñ ko yëpp mm-hmm. parce que dafa am ñoo xamante ni nii xam nga kañ la ñuy yëg taw bi. bu ñu yeewoo suba teel génn taal seen oto génn seen biir kër si leen yëg ne doon na taw. Mm. mais am na ci majeure partie sénégalais quatre vingt quinze pour cent sénégalais yoo xamante ne ni ñu ngi dund ci ay jafe-jafe yu méttee métti ñun mm. déjà dévoilé nañ ko. déjà ak Cambérène suñu problème. Mm-hmm. gars wax nañ ko ci seen conférence de presse bi wax nañ ko ci xanamu xalif bi ñun amuñu problème mu ndox. taw ah, man de kenn laa am ku mun a jàppale ñëpp. Mhm. muy jaaw. très bien <laughs> jërëjëf Lamine bon week mais euh, à vous. Euh, waaw parce que dañ lay am incha allah ci euh, rajo bi muy 13h samedi bi ci week-end bi yëpp. Uh-huh. di la am également dimanche ci gudd. Uh-huh. ci guddi da nga jongante. Ah, ok incha allah rabi noppalul bu yàlla yàlla def ñëpp jàmm. amiin yaa rabbi mi ngi noonu <laughs>